billahi min asaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barakat cheikhul xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki am di jàmm yi noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam tey jiital ci nuyoo beeg siyaar bi sëriñ Muntaxa xalif général di kullu murit di ko ñaanal yàlla mu gën a guddal aw fanam dolli ko gër Euh, ndax ak nekkam fi day baax na lool ci réewum Sénégal waaye baax na yit ci tuuba ndax wax dëgg yàlla de kuy am yëg-yëg ci sëñ Touba day bëgg nga ci xilaafaam gi ndax bu set nga gis ci loo xam ne nii da nga xam ne lii sag la kon nag yàlla na ko yàlla gën a aar yàlla na ko yàlla gën a sagal ba abadan seen mbokkum taalibe Moustapha Gueye indicatif Cheikhul Khadim di taalibe Serigne Touba seex ma Bamba Xaadimu Rasul tey soppeeb sëñ Mbàkke moom maam soxna Loo Jóob Taïf ak sëñ Mamor bu seex Cheikh Mouhamadou Mourtada di ko ñaanal mu yàgg fi te wér lool ak njabootu Cheikh Mouhamadou Mourtada gépp tey ànd ak sëñ Muntaxa ci liggéeyal sëriñ Touba saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér tey roy Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ci dëgg ak dëggal yal na ko yàlla dolli njéggal ak ñoom fa nekkal yépp yal na yàlla dolli waa barsàqit njéggal li leen ay xéewal ñoo ngi koy ñaanal it ñi nga xam ne ñoo nekk ci àddina yàlla gën leen a teg ci siraatal mustaqim gën a dimbali ñëpp ci aaja ji faj bi sahaadatu daara ni mbokk yi maa ngi sant bu baax ci déglu gi ngeen ñu doon déglu ci li nga xam ne mooy sunu émission yi ñu doon dawal te jagleeloon ko ñaari weer yi muy weeru muharram premier muharram ba trente muharram doon ko ànd ak yéen di ci jàngat dundub jàmbaar ja Cheikh Mamadou Moustapha Al Karim ci taxawaayam bu am solo ak ay réalisation waaye ba weer wa jeexee weeru safar wi dugg noone lañ ko làbbulewaat rek tàmbalewaat ko le premier safar ba fii ñu toll tey di bisub màggalu Touba muy 18 safar ñu fas yéene xëy nag def li nga xam ne moom la ñuy wax cérémonie officielle euh, ñuy tàggoog yéen ci waxtaan woowu waaye desaat na yeneen waxtaan ndax des na numéro 19 ak numéro 20 lépp day jagleel euh, dañ koy jagleel rek euh, li nga xamante ne si mooy nañ ko tàmbule woon ay njàngat dana ci am ak xool li nga xam ne moom lañ ci dolli ci màggal gi wala ñu def ko ci màggal gi te waru cee bokk yooyu yëpp ay njàngat la xool it li nga xamante ne si mooy li ci am solo te ñu war koo yaatal yooyu yëpp ci lañ fas ne ñëw ak télévision yi nga xamante ne si ak site internet yeeg rajo yeeg yooyu yëpp nag lañ bëgg golobal nag def ci ñaari njàngat njàngat bu njëkk baa ngi nii ci loolu lañ koy jëmee njàngat bi ci topp yaakaar naa bu ma jumul mooy numéro vingt ci lañ koy jëmee nag ci cérémonie officielle bi sunu gis-gis bi nga xam ne am nañ ko ci kon ñu daal di gaaw njëkkante ak waxtu wi def ci njàngat bu njëkk bi ci li nga xam ne gis nañ ne mi ngi yaatu lool te wërta bokk ci màggal gi te boole nañ ko ci te loola di pexem seytaane mu tàbbal ci biir ngir victoire sëñ Touba bi mu bëgg a xajamal te loola nag nekk lu yàgg waaye léegi dañ ko banaliser ba gone yi mujj juddu te gëstuwun yoon wi te amuñu éducation base ñooñu ñooy doxe noonu ànd ak mag ñi nga xam ne dañoo sàggan ba pare bëgg àddina te nanguñ ko jaan ci ak jub bu njëkk bi mooy gis nañ ne màggal gi bari na ay jafe-jafe waaye ni mu bari ay jafe-jafe yépp mooy sàggan gunu sàggan ci njàngale njàngalem sëñ Tuubaa mi na ko yóbbe muy tayal nañ ci lool dem sax ba li ñu roog xam-xam dañ koo gannaawal jëfandikoo wutuñu xam-xam wutuñu doxe xam-xam te nit nag buy dox te amul xam-xam bëgg a dund ci àddina moog oto buy daw ci lëndam te yorete lumière ñooyam buy buuse rek di def infraction xam-xam mooy li mu yar ci oto kon xam-xam dafa war a accompagner ak nit ki ndax moo koy leeral fi muy jaar baru am benn jafe-jafe loolu rek moo taxoon sëñ Tuubaa wàcc fi doon yeesalaat sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim bind ci téere xam-xam ak lam ca wax ci bunt ya nga xam ne jagleel na ko ñii di mag ñi ak ñii di ndaw yi lenn lu ne sëñ Tuubaa wax na ko la mat a wax lépp wax na ko la ca mat indi indi na ko si beneen métatu njàngale boo xamee ne que nii yow da nga mën a jàng xam bu baax li sëñ Tuubaa di wax ndax téere yi ci bari da ko toxalewaat ci ña fi jiitu woon nga xam ne ñoom ñoo ko bindoon nga xam ne bu ko bàyyi woon noonu tey ku gëstu ba àgg ci njàng mu gudd nga koy jàng waaye moom dafa ñëw nag indi ko ci façon boo xam ne comme ni ko sëñ Maam Mor Cheikh Mamadou Murtada di waxee yàlla na fi yàggate wér loola sëñ moom la def. kon gannaaw ba nga xamee ne xam-xam moom tàmbali nañ koo rey ci biir yoonu murit waaye am na ay benn benn yi faraloo nag di ko jàng ba tey moo xam ñuy jàngale alxuraan waaye it moo xam ñu boole ca daaray xam-xam di ko jàngale ak jàngaleem sëñ bi waaye téeméer boo jël nag mën naa ne ñaar fukki rek ñoo ko ciy def pour cent ñi ci des ñépp defatuñ euh, li nga xamante ne si mooy njàngam xam-xam waaye ñi war a jàngale yit sawarantu ci jàngale xam-xam ndax la sëñ Tuubaa waxoon ci masaalikul jinaan rek ci isbaana yaag wa baax doxum yi loola sëñ Tuubaa ba mu koy wax xamoon na ne 2024 bi buñ ci accès gis na ne lii mu leen wax di ko wax taalibe yi dana dana am muy yegg sëñ Tuubaa yee taalibe yi loolu dafa ëralsewul ñi nga xam ne ñoom ñooy këf taalibe yi di leen xañam di leen xañ yi jàng xam-xam ndax buñ jàngee xam-xam exploitation boobu yi ñu leen di def dutuñu ko mën loola nag pour nga génn ci sowe sa bopp ci àddina sowe sa bopp ci àllaaxira say boo ngi yéen daal di dem dab dabalaat ko ndax jaamu yàlla kenn mënu ko def te xamoo dara ndax lu bon bon da nga jàng alxuraan waaye da nga jàng xam-xam ak fànn yépp ba xam ràññee li yàlla digle lépp ak li yàlla moomal boppam te seddu ci kenn ak li yàlla may yëpp jaamam boobaa nit ki day am tawxiid ñu gis ne loolu nag wàllu enseignement boobu sëñ Muntaxa da cee jàmbaare loo ndax wax dëgg yàlla université bi ku gis lim ci investir ci xaalis xam ne kii dekkal njàngum sëñ tubaab bi ñor na ko bëgg na it nit ñi xam bëgg na nit ñi guddi yi ñu toll ñu jóge ci waaye mel na ne ñi ci war a jàng ak ñi ci war a dugal seenu njaboot ak ñi ko ci war a jàppale ñoom dañuy yéem milliards yi ci def waaye yéemuñu maanaam jamono ji ko sëñ mun taxaa taxawale ak lim bëggal yoon wi bu ëllëgee yoon wi jafe-jafe yi mu nekk mu génn ci waaye ñoom xaalis ba la ñuy yéem dañuy taxaw di ko kañ di ko bàkk ah yoonu dàngam na génne na nangami milliard def na ko ci waaye du am jeexital mukk ci ñi nga xamante ni si ñoom ñoom lañ fa war a indi ñu di fa jàng wala ñi nga xam ne war nañ faa jàng yi ñu war a dem maanaam góorgóorlu dem jàng fa waaye sëriñ Maam Mor bu Cheikh Mamadou Mourtada gis ngeen ne dundam gépp gépp gépp gépp ci jàng ak jàngaleel la ko def dundam gépp ci nit ñi xam la ko def dundam gépp ci nit ñi xam tax xamee la ko def boole koog ay communication ay message yu muy jàllale boole koog di yoru dàllam sol ko jël avion di dem réew ak réew yu wuute nga xam ne amatul jot ci dara wax dëgg yàlla kooku ku ko gis xam ne bëgg naa dekkal xam-xam te ba nga ko doon ne ca waajuram wa Cheikh Mouhamadou Mourtada yàlla na ko yàlla dolli jéggal ak yërmande te tas yi ci barkeem kon yaakaar naa ne ñaari point yooyu ñu yëkkati rek ci diggante sëñ Muntaxa ak sëñ Mamor kon yaakaar naa ne ñii bëgg nañ yoon wi jóge ci catastrophe gii mu nekk ndax ku am jëmu ji toll sëñ Tuubaa muy sëb sëriñ bind téere xam-xam tegu woon ci jub daan ko dégle ñu dem ba loolee di rëcc ñu di ko sàggane muy rëcc dem ba mel na gisatuñ ci sax dara ba yoon wi dugg ci gàtt garaawale goo xam ne ki ni génnee ko ci yombul kon bu ñuy jógee sol seenu dàll bëgg a xettali yoon wi ci xam-xam jaadu nañu jàppale leen ci ba tax na lool it ñi nga xam ne ñoom ñi ngi leen ci jàppale bu baax ci message yi jàll ci lu mel ne organisation màggal mooy ku mel ne ñu mel ne waa Rawdu Rayaahiin te sëñ Ahmadou Badawi yu nekk ca bopp ak borom xam-xam yu bari jàngalekati alxuraan yu bari ay nit yu am qualité am qualification ci fànn yépp nekk fa di def liggéey bu rëy ci façon bu nekk ngir bëgg a taaral lislaam ci xam-xam bëgg a taaral lislaam ci jaamu yàlla loolee nag danañ ci génnee ay moye yu baree bari danañ ci jànkonteeg yu ay moyens yu baree bari yoo xam ne nii euh, ci wàllu financement loolee xam nañ ne ku xam-xam ñu doo jël alal ji toll noonu di ko ci dépassé kon lu baax ba tey ñi koy def ñu ngi fi te ñooña mooy ñi sëñ bi tànnaloon boppam ne surriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil mustatab te loolu ku ci xool support bu mel ne waa Hizbut Tarqiyyah da nga xam ne xam-xam am na solo ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne kuréel la gu sosu sosoo ca xam-xam gu ànd ak gëm sëñ Touba te yàqalu leen ci seen lislaam dara fànni xam-xam yépp ñu xam ko ba li firnde ji rek mooy benn isbu tarxiya booy dox ba gis ko mu nekk ci palaas wala mu nekk feneen foo xam ne si ñoom yëlifuñ ko di fa sàkku dara amul ci bunt yépp nag mboolem lu nit di jariñoo ñoom jàng nañ ba am qualification bi installé seen i projet ci seen biir daara booleeg dese seen xam-xam gan gu sëñ Muntaxa fonk gu mu mën a doon ñoom la ko yëpp damay wax ne tey jii jumaay daan mais bu wàccoon tey na day wisit si Touba bu dikkee sëñ Muntaxa daara Hizbut Tarqiyyah la ko yebal kon xam-xam nga ne am na solo te boo dikkee loo matière loo fa soxla loo war a xam danañ la ko génneel wan la ko leeral la sëñ Touba ba nga xam kat mooy sëñ Touba léegi nag Rawdu Rayaahiin bu fekkente ne def na programme boo xam ne si màggal gi day exposé li nga xamante ne si mooy njàngaleem sëñ Touba mi wutal ko barab def ca alal ju dul jeex dajale ca boroom xam-xam yi ak gat ñi nga xam ne dañuy jóge bitim réew di jóge ci yeneen réew yi di ñëw di xool si Touba di ko couvrir buñ dikkee ñoom it ñu dalal leen def ay programme ay waxtaan ci fànn thème nekk ñu di ko ci def loola kon tey doyoon na sëkk wàllu communication bi muy télévision yi ñu yor organisation màggal gi tëral programme boo xamee ne nii dañ koy tàmbali ren boole koog di informer nit ñi di leen sensibiliser ngir prochaine màggal 2025 ñu ne leen màggal gi nag soppi nañ ci lu baree bari bu doon téeméer juróom-benn fukk yépp dindi nañ ko sànni muy deesatul may benn site internet wala deesatul may benn télévision wala benn organe buy jàllale information buy sañatee dikk di dugg ci biir Touba di diviser say programme ci noom la neex danañ leen sàttalit la nga xamante ne si moom la ñuy divisé moo xam bu dee télévision yi mbirum politique dañ koy bàyyi ca fa nu jóge bàyyi ko ca seeni organ ca fa nga xamante ne fa lañ ko samp waaye mbirum politique moom diisatu ko traité ci màggalu Tuuba ba tax na loolu gis nañ ne lim yàq ndax fi mu ni télévision yi ci bari kenn ku nekk yaa ngi fexe sa moroom noo ko mën a rawee ci jàllale information ba tax na yi bu ñëw ànd ak délégation daa mel na ñooñu ñoom lañu beral màggal gi waykat yi nga xam ne ay star lañ ñoom lañ beral màggal gi seeni délégation ñoom lañ beral màggal gi fañ nekk la ñuy dem di ko filmer fa ñuy nekk la ñuy nekk di di wax ak ñoom politiciens yi la ñuy accueillir ñoom la ñuy laaj lu xew ci làggu politique yi yooyu ña nga bàyyi raw dara yaaxin di def lu am solo te kenn du ko xam loola dañ ko fi jële ba mu jeex wut ay misir yoo xam ne nekk nii kenn ku ko jalgate danañ la teg ci yoon boole koo it danañ leen wutal fu ñuy jaar foo xam ne nekk di deesutul dikk rek jël sa télé wala nga jël sa programme di ko defe nu mu la neexee dafa am loo xam ne si da koy wàcc ak waa Touba te loola day duggaat ci keesu waa baax te loolu day demaat ci keesu ñi nga xamante ne si ñoo yore organisation bi bu boobaa danañ mën a teg mbir mi ci yoon télé bu ci nekkit ña cay wax dañ leen di tànn deesut fi indi n'importe quelle personne. journaliste bu jóge ci àll ba rek wala animateur wala ku mën a doon rek nga ñëw daal di def sa plateau daal di tàmbali di waxtaan yooyu yi jóg palaato bu ci nekk na boroomi xam-xam ñoo fiy nekk te it nag benn programme lañ koy def muy benn récit boo xam ne nekk ni ñoom ñëpp ci siñaal boobu la ñuy jël moo xam nag ban la moo xam almouridiya la moo xam RTS la moo xam ban télé boo xam si lépp ci loxoom lay teg moom mooy jox ñii ci def signal ku bëgg a teg Euh, lu jëm ci màggal gi ci signal booba nga koy jaar su ko defee ñu danañ ko mën a organiser noo xam ne si wutal leen foo xam si fa la nekk waaye deesatul may n'importe kii ñi nga xam ne dunduñu yoon wi xamuñu yoon wi donte ay jullit lañ di leen teg ci plateau télévision yi ñuy wax lu ñu xamul ak di wax ci mag ñi loo xam ne si dunduñu ko xamuñu ko moo xam que ñi nga xamante ne si jàng nañ waaye xamuñu culture yoon wi wala animateurs yi nga xam ne dañ lay animé ca télé ba ñi nekk ci làmb ji ñi nekk ci bisig ba ji leen bàyyi ñi yor ay plateau di seere wala koo xam si da ngay waxta amoo xam-xam lu sa kàddu rafet rafet ak lu mu leer leer loolu moom dañ ko fi interdit moom nga xam ne spécial màggal lay doon plateau yoo xam si boroomi xam-xam doonte nag waa kuréel gi ñoom ñoo leen di tànnal ñiy toog ci plateau bi télévision bu nekk ba ci site internet yi boroomi xam-xam ya fa nekk xajuñu yooyu télé kenn ku ci nekk na boo dikkee danañ la wutal ñoo xam ne si ñoom ñooy seere sa plateau su fekkee am nga sa borom xam-xam yu màcc ci diine it mën nga leen a jël ñuy modéré li nga xamante ne si mooy émission bi di dalal boroom xam-xam yi ñu mën a tasaare njàngale sëñ Tuubaa bi di génnee li am njariñ te nit ñi bëgg ko kon loolu ba tey bokk na ci li nga xamante ne si lees war a taxaw la te gis nañ ne yàq na lu bari ndax fi ne kenn ku ne yaa ngi sob caméra di génnee lu la neex dégg nga télévision yi di def seeni journal di sosal nit ñi te lépp jëm ci politique bi mu andi ay polémique ak di wax loo xam si dara du ca dëgg ñuy weddee ko wax loolu day tardeel ñi nga xamante ne si dañoo bëgg a wu ci Sëñ Tuubaa su ko defee barabu siyaare kaay yeeg barab yi nga xamante ne si dafa am jeexate ci Sëñ Tuubaa ak réalisation yi ñuy def ci biir Tuubaa yépp bu boobaa tele bi ko xam ne si moom moom moom lañ jox signal bi mu koy joxaat yeneen télévision yi ñoom ñëpp ci moom la ñu intégré wu bu boobaa nag kenn ku nekk. bala ngaa ñëw Touba da nga am ci condition yu leer yoo xam ne si moom lañ la teg bu boobu jàllee danañ tëral programme boo xam ne que nii comme ni ko Safinatu Amaan doon defee mayetuñ léegi genn kër goo xam ne ay jigéen dafay nekk góor di jaxasoo ñoom moo xam kër sëriñ si la moo xam kër taalibe yi la moo xam kër seex si la bu dee kër sëriñ si it danañ ko organiser ba ñi nga xam ne ñooy liggéey ci kër sëñ bi mooy soxna yi duutuñu jaxasoog ñi nga xamante ne si ñooy. gani màggal gi ci ay góor bu dee ñoom yi nan ay jigéen it danañ leen tëralal ay sàtt bis bi du bisub xawaare na lépp di diine waaye na lépp di njàngaleem sëñ Tuubaa jataay bu mën a doon it télévision bu ko mën a génnee nay doon ñu muuru nay doon jataay boo xam si sëñ Tuubaa dana ko rafet muy jataay bu nuy jànge jataay bu nuy wax waxtaane ak jataay boo xam ne si dañu fay bernde te lépp tegu ci sunna danañ régulariser loolu teg ko ci yoon ba góor duuta am aspect di dugg ci kër kilifa goo xam si day dem di dugg ci néeg soxna ya wala muy dugg ci barab yi nga xam ne soxna yi dañ fay daje su ko defee ñii ñuy wax ay giryool nag ay géwél ñenn ñi nga xam ne ñoom maanaam dañoo génn xeet topp kër sëriñ si di wayaan naka tàggit loolu lépp dañ koy régulariser ba loola duutu fa am ko defee nag kum neex mën ngaa màggal si waaye dee sutul may di jël ay waykat di leen laaj ci bis bi ñuy ci taxaw am luñ ciy wax loolu dafay jóg te loolu organisation bi képp ma ko mën suñ ko defee danañ ko mën a segg jumaa ji it duñ mayeti ku yorob caméra dugg ku yorob filme dugg li wër jumaa ji urum yëpp danañ ko xool duñ may kenn koo xam ne si da ngay sol sax col ko goo xam ne nii mérité wul ak jumaa nga di ko taxawee ci jumaa ji wala nga yor sab caméra wala ngay filmer wala góor ak jigéen di fi dajaloo danañ ko def programme boo xam ne si daal ku fi màggal seeti moom li ëpp ci màggal gi liñ ciy dund di ko seetaan tey di ko déglu ci rajo yi moom lu sëriñ Touba gërëm la lu sëñ Touba bëgg la ñi nga xam ne dañuy am seeni publicité it danañ ko teg ci aw yoon du n'importe ci lu la neex publicité ko ci màggal gi te sa intérêt képp nekk ci te Touba du ca am dara publicité yi dafa am loolu day dana mën a jàll am ci loolu du mën a jàll bu dee lu araam lu ñuy publicité loolu moom du mën a jàll ci programme màggalu Touba loolu moom ñiy saytu mën nañ cee tàmbali dox ay jéego bu nu ko defee nag mboolem barab yi nga xamante ne si doomi sëñ Tuubaa yaa ngi fi bàyyi fi seen xalifa yii kenn ku nekk ñu dem ci sa kër génnee génnee kilifa ga génnee la nga xamante ne si moo xew ca barab ba comme ni ñu ko baaxoo di defee su ko defee it li nga xam ne yi réaliser nañ ko yoonu murit laata loolu danañ wax ne ku ci bëgg nag am aspect mën nga cee tàmbali def say reportage yoo xam sii nag moom loolu sa mbirum bopp la waaye nag na tegu ci xam-xam lu mel ne wàll agriculture ku ci mel ne sëñ Seexum sëñ Saalihu li mu yor ci ay daara ak fi mu ko am ci biir réew mi fépp television bu nekk ak site internet bu nekk mën ngaa dem ci daara yooyu moo xam xel ko moo xam njurul la moo xam mbur la moo xam poroxaan la fenn fu ci ne may nañ la nga dem fa couvrir fa nu mu la neexee te waxtaan ña boom ña ña yilif barab booba ak ña nga xam ne ñooy boromi xam-xam su ko defee loola bu amee nit ñi danañ xam yoonu mu ret li nga xam ne moom lay implanté ci wàllu agriculture beneen bi ci des lu ci mel ne université Sëñ Muntaxa yi moom itamit kum neex mën ngaa dem def fa reportage waaye na ko jaar ci ñi ko dirigé ñu bool leen ak boroomi xam-xam te li ngeen di filmer buñ paree dañ koy segg xool ko ba mën a jàll su ko defee loola buñ ci defee reportage bu fekkee jàllale lu baax rek a leen ñor loola bu ngeen demee ngeen diviser ko boole ko li ngeen am ci màggal gi su ko defee tamit lu mel ne lii sëriñ Mamour Cheikh Mahamadou Murtada di def muy université ICAP université Cheikh Ahmadou Bamba xam ngeen fi mu am ci réew mi documentaire man ngeen ko cee def boo xam ne télé yëpp koy jàllale li mu fi def ci ay école li mu fi def ci ay université ci région bu nekk ak université bu nekk jàmbaar dañ ko tuddee ak tournée yi muy def bitim réew ak réalisation yi nga xam ne mi ngi koy def ci biir réew mi loola lépp man ngeen ko couvrir doy na leen ab liggéey su ko defee mboolem lu Sëriñ Tuubaa def te ñu wutu ko ca loola ñëwoon ko tali bi su ko defee daara alxuraan yi nekk ci biir Touba yëpp ñu xool daara yëpp recensé ne nangami daara la su ko defee dañ leen di obligé obligatoire bu fekkee bëgg ngeen a filmer yooyu da ngeen bokk ci programme bi ngeen dem génnee ko xool dundin wa ñuy dund ak ña nga xamante ne si ñoo fay jàngee condition yi ñu fa nekk loolu it bu boobaa danañ ko mën a xool ba lu ciy rëq-rëq ñu mën koo réparé su ko defee loolu. dana nekk lu am solo loo xam ne nii bu ñu ci taxawee màggal gi dana nekk ci condition yu am solo su ko defee leen lu ci nekk dañuy koy wutal mesure de accompagnement du ñu ko wax bàyyi ci danañ jël sanction yi wax ne képp ku jalgate lii moo la ciy fekk validé ko ba état bi man ko accepté nga xam na ku ko ci jalgatee dañu lay atte wax la ne la lii yow yaa ko def nangam lii dañ dañ lay atte su ko defee ñu atte la ci bu ñu la ci attee nag léegi waaw bu la ci attee léegi su ko defee la ci ay sañ ñu teg la ko waaye jox la kamaraa nga ne ci biir Touba di wër loo romb filmer góor ak jigéen di jaxasoo ngay filmer tëgg meeg lépp ngay filmer te daw dara yaa nekk fee di def lu baax a baax a baax dégg nga liy dox ci Touba te am solo njàng leen sëñ bi mboolem mag ñi ko toppoon kenn ku nekk yaa ngi ko dëkk fa nga jaar ak sëñ Touba mën nañ ko def documentaire boo xam ne si murid mën a gis seen bopp. su ko defee loolu bu jàllee loolu màggal gu am solo la ñuy def su ko defee nit ñi dañ xam sëñ Touba kuy màggalee ci Touba da nga xam condition ya nga fa war a demee waaye buñ ko bàyyee nii rek nga xam ne fu neex waaye dugg lu neex waaye wax mooy waral polémique yi bari yi di am bés bu set ñu génnee fi lu am ndax politique buñ koy def dañ ko war a defee ji ca langue politique bi bu màggal Touba jotee ñoo xam ne màggalu Touba waaye jël seeni camarade di dàkk maanaam ñi nga xam ne ñooy politiciens politiciens bu ñëw ñu ne politicien ñëw na dékk ko micro yi laaj ko ñuy wax loo xam ne si dafa safaanoog dëkk bi ñu jël ko di ko diviser di ci werante nit ñi duñu xam fu lay teg seen tànk màggal gi dañ ko war a jàngale ñuy jàngale université su orma jeeg lañ fa war a def ak li sëñ bi bëgg ak lépp ñu def ko su ko defee beneen bi ñu desit nag mooy Touba. publicité yii nga xam ne moom la commune bi jël di ko traité ci dëkk bi loolu dañ ko fee war a jëlee daar daar Touba dafa war a am ay publicité bopp muy njàngaleem sëñ bi xasiday sëñ bi am na nuñ ko doon jële di ko def ay panneau publicité ci version yëpp comme ni ma ko waxee woon daaw anglais ak français ak arabe yi nga xam ne day dox ci àddina bi nga xam ne boo duggoon ci sa oto nekk ab anglais booy da nga dem ba àgg ci benn bayitu sëñ Tuubaa boo xam ne si niñ la ko traduire la ci anglais da nga xam li message bi kii nekkoon ak lim doon woote loolu dana gën a gaawal njàngaleem sëriñ Tuubaa waaye commerçant yi indi seen i panneau publicité fay commune bi ñu damm ci seen i gafa ga dem dugalaat ko feneen Sonatel jaar fee Senelec jaar fee kenn ku nekk jël ci sa gafaka duy ba mu fees te waa Tuubaa duñ ci am dara loolu dañ ko fee war a su ko defee mbeddi Touba yee tamit ni sëñ Touba defaree dëkk yi jël turi yàlla yi tudde ko ko te tàmbalee ko foofu ci tuubaa ak dëkk yi nga xam ne joxe na ndigal ñu di ko sancet loolee ñu soppi ko nga xam ne duutuñu wax ay new ga ak duutuñu wax terrasse ba ak duutuñu wax nangam nga mën nañoo jël xasida yi sëñ Touba yi bayit wu nekk ñu tudde ko ab quartier recensé ko su ko defee bu nu ko defee noonu bu ëllëgee nit ku nekkate biir Touba nekk quartier sàngam boo joxee adresse ba joxe code postal ba ak numéro ba ak numéro fa nga xamante ne si mooy mbedd ma nga nekk danañ la mën a identifier waaye tey bu ñu la bëggee identifier nga naan maa ngi numéro néew gaag maa ngi sexoo gaag maa ngi ci guy ga yooyu kenn mënu ci identifier kenn te loolu liggéey la boo xam ne si waa Touba dañ ci war a jóg taxaw ci liggéey ko ba Touba ku fa duggati ñu mën laa identifier xam yow fi nga nekk. bu buñ la localisé mën a xam yow ci fan nga nekk waaw loolu fi mu ne waroon nañ ko weesu bu yàgg waaye yooyu yëpp fi mu toll ni amul su ko defee wàllu circulation bi it ñu organiser ko comme li ma waxoon ci Touba ci kanam rek Touba ci kanam la ma leen waxoon rek fexe leen ba samp ay procès bu ngeen sampee procès yi lu mel ne wàllu élevage man ngeen ci liggéey ci màggalu Touba gi ba disatul dem mali di ko fa jënd ay xar a nangam transport bi it na sëñ Moutala defoon fexe ba wut ab CIE boo xam ne quatre-vingt-dix-neuf ans la ko ko Abdou Diouf defaloon oto bu njabootu sëñ Moutala indi ci boobu la ñuy dugg su ko defee bu ngeen amee CIE bu mel noonu nag dana leen permettre ngeen mën a jënd ay biis yu bari connecté ko ak réseau bi nga xamante ne si mooy daw aéroport bu ngeen fa jaaree ci fi ngeen ko war a jaar ba wut kayit yi nga xam ne wal bu nekk. xam nañ bés bu set ñaata wala fi wàcc wala bu nekk dana mën a am correspondance ay biis biis bu nekk nag day day dem ci régions yi wala yi fi décollé yi day am ay correspondant yoo xam ne si day jóge ci régions yi di ñëw ci aéroport muy mode de transport boo xamee nekk nii bu nu ko defoon insha allahu bu soobee sëñ borom jafe-jafe yépp dana fi jóg te loolu yi Touba da ci gis boppam raayu sëñ Modou Moussa bii it mën nañ koo toppaat kayit yi. ba def ko mu nekk raay bu moderne ñu wut seen train yoo xam ne si it dañ ciy ànd ak état bi su ko defee muy daw Jurbel eh, Touba man nay dem sax ba Ndakaaru waaye luñ ci gañee tuubaa da ciy am lu am solo quota bu am solo ndax raay bi mu murid yi ñoo ko moom muy Ferroviaire bi ñoom ñoo ko moom mode de transport boobu bu ñu ko defee def ko ci biir dëkk bi alal bi muy recette bi ñuy am dana leen mën a permettre lépp luñ bëgg a liggéey dañ koy liggéey yooyu nag de su ko wax rek di ko romb dañ koy fas yéenee nag exécuté buñ koy exécuté nag mbooloo koy def ay signature am ci accordu état bi am ci wutal ko sécurité bu wér boo xam ne nekk ni ku ci jalgati dañuy am loo yoon fuñ la teg jéego yooyu bu ñu ko tàmbalee bu ëllëgee balaa ñoo def ay at Touba dana am administration boppam boo xam ne nekk ni day am autonome boo xam ne si lépp loo xam ne bëgg nañ ko taxawal dañ koy taxawal te jafe-jafe duutu ci am ba doomi Tuubaa yi fi nekk danañ jàng danañ xam xàmmee danañ fi mën a toog di liggéey te duutu ñu génn biir Tuubaa Tuubaa daal di nag bëgg nag mel ni turandoo bu Madinatu Munawwara kon mbokk yi daal loolu mooy li nga xam ne man mooy njàngat bi ma doon jàngat ci lii nga xam ne mooy màggalu 2024 gi di ñaan yàlla nag yàlla nañ ko fekkee wat ak jàmm beneen njàngat bi ñu def ci cérémonie officielle bi nag mooy numéro vingt incha allahu bu ànd ak dogalu suñu borom des na ko génne incha allah jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullah